Khadija Mahécor Diouf salam, maaleykum salaam Babacar. ñu ngi lay gërëm ci euh, teewaay bi di nuyu El Hadj Ndiogou Diène bokk nga ci kilifteefu Pastef di parti Ousmane Sonko bokk nga ci li ñuy woowee ci na ngeen ko euh, administration générale bu parti bi yaa fa yittewoo lépp lu jëm ci mouvement yi maanaam xam naa mouvement yi leen di jàppale. bu dee ci wàllu gox-goxaat euh, yaa jiite jigéenu Pastef ca ca Géejawaay bala ñoo soli euh, seen mbokk yi ñu jàpp nu nu def. suñu euh, parce que nit euh, prison di nekk si injustement donc ñu profiter rek occasion bi pour demander qu'on libère ces otages politiques parce que ay doomu lañ injustement suñu leader Abbas Fall coordonnateur département de Dakar la femme de Biram Soleil Diop aussi qui a été injustement pris ñu emprisonné ko nous ñu ñu ko en à vue loolu aussi ñu koy déplorer de quoi déplorer de la manière la plus forte possible nga may ma rek Babacar mu nuyu sénégalais yi ak auditeurs yi ñi déglu yépp di profiter aussi ci occasion bi pour souhaiter un très bon carême à tous les chrétiens du Sénégal et du monde di ñaan yalla rek jamm joju nga xam motax ñuy woor yal na am ci Sénégal mm. sawan bawan jàmm itam euh, waru leen ko wuta ndax euh, liñ leen di jiiñ mooy da ngeen a bëgg a wëlbati réew mi ndax rek euh, Ousmane Sonko am na xiini mi ne gum amal lañ teg yoon. loolu sa wax la de waaye gëw ma ne Ousmane Sonko ñi jàppaate. ñoo gàll ci loosu ñi ñu jàpp loola. ah non jàppaguñ ko ci suñu loos ndax ñun tey li ñu jàppee Ousmane Sonko li ne kott ni jonn ñu ciy waxtaan boobu ba léegi mu yëngal senegal ëpp réew mi tëj réew mi. ci guuta euh, affaire viol la affaire viol la boo xam ne tey euh, boo xoolee euh, fi mu fi mu mujjee c'est un viol aujourd'hui qui vire vers un complot complot boo xam ne ñi ko orchestré mooy ñi nga xam ne depuis belle lurette ñu ngi jéem a faagaagal démocratie Sénégal ñu ngi jéem a faagaagal Ousmane Sonko di ko tuumaal ci lu ne di ko tuumaal ci ay djihadiste di ko tuumaal ci ay salafiste di ko tuumaal ci ay affaire tout le oil tey nag ñu jéggi dayoo aborder loo xam ne dafa dépassé nag adversaire politique parce que ligne que langue politique bo xamné euh, dañuy dañuy dañuy dañuy euh, permettre ñu am ay débat d'idées mais tay dañu dem la loi xamné ne euh, fay toucher à l'honorabilité nit loi ne fay toucher dignité nit loi ne fa dépasser adversité politique on verse vers l'animosité si scène politique sénégalaise muy nous xamné ñu de la manière la plus forte ñu comploter pour détruire une personne pour détruire la dignité d'une personne. mais nga naan complot la alors que moom Ousmane Sonko nangu ne ne demoon na ci salon de massage bi dafa daan dem yàgg na fa di dem foofu ne di massé wu euh, ba mbir yi ñu ne da ko violé nga ñëw taxaw nga naan complot nguur gi. El Hadj Ndiogou tey boo xoolee dernier développement yi affaire bi am. Euh, police euh, section section de recherche bi nga xam ne moo yore woon enquête bi diko enquête tek ko ci remercier nak di wax ni partout dans ce pays ndekete amna ay patriotes ay nit ñoo xamne dañuy def taala li a rien dans le dossier le dossier est vide. lolu euh, rapport médical bi organe de presse wax nañ ci waxat ci ñu gis ni tay euh, propriétaire salon de massage bi wax na témoigné na euh, deuxième masseuse bi wax na témoigné na lolu yep nak li ci gëna am solo euh, le rapport médical dafa wax ni y a même pas eu de rapport sexuel dans les 16 heures donc le dossier est vide ce dossier a été monté Et li ci gën a doy waar Il foofu la nit ñu war a poser foog nga ni foog enquête kat yi yab Sénégalais yabin ngoo xam dinañ enquête ci Mali Foro ci li ngay wax ni euh, est-ce que ñom loolu lañ wax loolu lañu ñu gis wóor na la am. le le le rapport d'enquête et sur la place publique té defana naa yek yëg ngeen ko té sénégalais yi ñuy seetaan. ñoom am na am na lu ñu gis ci soxna si soxna si gisuñu dara ci mom ndax tay euh, le médecin bi nga xamné moko moko sét médecin bi nga xamné moko mo mo moo moo occulté dafa né ndaw si non seulement amul lésion mais amul rapport sexuel ci moment yi nga 16 heures avant ñukoy indi foofu super bi wax bi ñu kon je les mets au défi ñu ma rapport bo xamné tay nañ que ni man que euh, euh, Babacar ak euh, Ndiogu xam nga lan Sénégal dañuy jël ils ne sont ni de près ni de loin liés au dossier ñu leen yoni ci ay médias wala ñuy out luñ ci am di di di wax ci lo xamné amuñu ci benn preuve ñun liñu wax dafa ce dossier est un complot politique ourdi par pouvoir bi nga xam ne moo nekk en place maître Jaraaf Sow ne woon fii dem waxul loolu pour détruire un opposant politique yéen a bokk géejawaay maître euh, Jaraaf Sow ñoo bokk géejawaay mm. may nuyu waa géejawaay di profiter ci occasion bi je suis une digne fils de un digne fils de la banlieue une fille de la banlieue et j'en suis fière donc sama sama papa jooju maître Jaraaf maa ngi koy nuyu au passage mais nag d'accord ma ak moom ñun tey éléments yi ñu am à notre disposition wane nañu que ni lii c'est un complot Eh, élément pour élément élément pour élément may ma rek élément pour élément Babacar déglul leer euh, na la ni te hmm. leer na sénégalais yi ñuy déglu que lii dafa am visée politique c'est-à-dire dañoo dépassé léegi mën nga noo wax Ousmane Sonko Ousmane Sonko ci boppam mhm. euh, ci lu borom salon bi sax nettali mhm. bésu tabaski mhm. diggante euh, midi ak tisbaar mu dem foofu di bëslu tabaski nga xam ni bésu ci kàllamay dina Aïd el Kabir ñëpp toog ci seen i njaboot ak ñoom seen moom bésu tabaski mu mel ni ku rocceeku noonu euh, dem bëslu. loola itam est-ce que bokkul ci li mën a teeyal xelu nit ñi. non Babacar yow kon ndax feebar dafa am bés wala day tànn wala te feebar dafay tànn moment. Babacar nit mën naa fee nit mën naa faatu sax kon feebar bi nag garaaw na waaw feebar bu garaaw la ndax nag ku am ku xam problème lombaire nga xam ne lu metti la te mën na laa dal à n'importe quel moment xam nga tey pour man débat bi waruñu ko yóbbu foofu xam nga man fu ma bëgg ñu waxee. débat bi moom nañ wax lépp ndax ndax tey dafa am loo xam ne. ku wax lii wax la ca des. dafa waa ku wax lii wax la ca des. waaye dafa am loo xam ne tey foofu la sénégalais yi war a xoolee lan moo tax ñuy attaqué wu à la personne du président Ousmane Sonko lan moo war a mën a tax une affaire bi nga xam ne ñoom dañ ko jugé comme étant une affaire privée yóbbu ko sur la sphère politique di ci am nag ay rebondissement yoo xam ne euh, la justice est mise en ébranle l'Assemblée nationale aujourd'hui bi nga xam ne dafa bëgg a lever l'immunité parlementaire le juge juge d'instruction le procureur nous avons ne mbirum viol ñu war instruire à la section de recherche classé ko sans suite wala poursuivre le... nous, nous, nga accusé à la section de recherche nous ñu non non non laisse moi rek ma nous ñu ko non da ngeen may ma wax sphère donc l'affaire suite Beauté qui oppose Ousmane Sonko et Adji Sarr mais suwet beauté xam nga beauté beauté googu mooy jafe-jafe gi ñu ni ñu ñu bind ci seen tableau bi euh, massage avec de charmantes filles xam nga yooyu moo moo garaaw yaa ngi miim sànq ne bésu tabaski bu ko neexee mu dem bés ji ndax wopp est-ce que wopp doo dem urgence médicale bésu 31 décembre ñu ne dem na fa ñaari yoon euh, bés lu gi itam tar na lool waaye yow Babacar kon yow jour yi ngay feebar wala euh, sa mboq wala keneen di feebar yow mën nga koo tànn. mosuma gis ku dem bu ñu taxaw noonu noonu bu ñu taxaw ci benn bés. mën na nekk te feebar bu la dalee. li nga war a def pour wér rek ngay def bu fekkee da nga war a wu cinq fois di nga ko def là n'est pas la question xam nga man lu ma bëgg tey suñuy waxtaan ak sénégalais yi nañ leen wax loo xam ne dañ ko mën a dégg parce que gis nga ci dossier bi dafa am dafa am dafa waaw waaw waaw ndax nag ndax nag ñun bu ñuy wax dañuy wax li nga xam ne suñu akulaay taala moom lañ gëm moo am muy un complot complot boo xam ne lenn rek moo ko motiver détruire un leader politique bu nga xam ne leer na leen ni tey il incarne le chef ah, position sénégalaise moo ko ndax tabaski nga bëslu 31 nga bëslu jour final coupe d'Afrique nga bëslu moom daal bés yu rëy rek lay bëslu waaw waaw xeyna xeyna xeyna na bi jour bobu la ko dal buñu jël débat bi euh, limité ko ci ay bés xam nga luñu wara wax lutax tax ñu bëgg détruire Ousmane Sonko et qui est Ousmane Sonko Ousmane Sonko tay dafa nek une bonne nouvelle dans la sphère politique sénégalaise ndax nak tous les sénégalais war nañ rafetlu euh, ñewum politique président Ousmane Sonko man une femme comme moi et des milliers de jeunes yo nga xamné tay dañu boudé won la politique euh, guedd Sénégal ndax ni muy doxee ndax politiciens yi nga xamné ne ñoo ñuy jité bobu ba légui di def lu leen neex ñun on a il a eu le mérite de ramener waat ñu ci sphère politique bi ñu commencé di intéresser wu à ce qui se passe dans ce pays donc tay c'est donc, aujourd'hui qui incarne l'opposition bi nga xam le régime bi en face di bañ de boo euh, euh, on doit réduire l'opposition à sa plus simple expression un monsieur un grand monsieur comme le président Ousmane Sonko feulé ci langue politique bi tay mu am une bipolarisation Non, public. non. non waxi politique la les faits hein? les faits xam nga les faits un homme politique qui aujourd'hui seen sondage yëpp leer na il va succéder au président Macky Sall en 2024 C'est une enquête ak rapport ak lépp lu ñu def xam nañ ni président Ousmane Sonko mooy incarner la rupture et le changement bi nga xam ne moom la sénégalais yi doon xaar tey kooku la ñu bëgg dañu rek détruire l'opposition réduire l'opposition à sa plus simple expression ñu commencé ko ci Khalifa Sall dem Karim Wade dem ci Khalifa Sall Ousmane Sonko bi nga xamné ne len leen ñom ne leen nangu ñuy fowee Sénégal duma nangu ñuy instrumentaliser la justice duma nangu ñuy fowee alalu Sénégal lu ñu def loo xam que waruñu sénégalais yi xam. tamit est-ce que ñu ne il faut ko pour mu bañ di incarner opposition bi taxaw euh, nekk alternative pour euh, sénégalais est-ce que waru tamit euh, xam fu muy teg tànkam fu muy dugg fu mu dugg xam ne lu bu demee ba ay massa ay salon yu tekkul dara mu fay dem loolu du surtout que Abdoulaye wax na ko nee ak piège daf ci daanu. en fait gis nga bantu noonu du damm le président Ousmane Sonko tay moy noonu pouvoir bi. place. bàyyil jax yi euh, hmm. pouvoir en place. donc les luñu qui def rek pour tilimal ko pour saltel deram pour jaxase ko ak sénégalais yi euh, malheureusement ils utilisent des bassesses euh, c'est lâche parce que nous pouvons débattre dans des idées Nous nañu argumenter contre argumenter nous nañu sax bañ beaucoup de position c'est dara mais waruñu yobbu débat bi si ay débat de bas étage te tay malheureusement le président Ousmane Sonko a le droit de masser wu fu d'autant plus que est-ce que dafa am ci loi bi lo xamné da interdire mu dem salon de massage. da ngay dem ci kinésithérapeute non non non xolal xalé bu jigen bu xamul massage xam massage ni mu ni mu sensibiliser mën sax mm. nit. dara la ci ndax le non fa fa dem ba loolu kay. non je te pose une question da nga fa dem. vingt ans la am mënul mënul. jàng kinésithérapeute ja loolu non non non bul bul verser si loo xam ne leeru la moom mi nga xam ne moo fa dem tey euh, ñu maase ko li mu yëg ci yaramam. ak confort bi mu yëg xëy na après massage bi donc moom rek moo am habilité moo habilité tey pour tontu ci question boobu. seetal li ngay wax de. waaw loolu laa gis. confort ak yooyu ngay wax tey munu munu munu leen a munu leen a euh, jugel nit loo xam ne ressenti wam la li muy ressentir bu ñu ko maasee xanaa ku fa dem génn ne mankat bañ ma maasee gisuma ci tan gisuma ci njëriñ kooku moo mën a porter sa jugement qui est très subjectif Babacar dañu nañu bañ a verser dans wax bi du loolu xam nga wax bi lan la. le président Ousmane Sonko dérange mënu leen bañ. yéen mënu leen bañ yéen waa Pastef mënu leen bañ nit wax xalaatam ci réew mi ndax ku wax lu safaanook Ousmane Sonko ngeen saago ko ci réseau sociaux yi di menacer de mort et cetera est ce que tam yéen war leen xoolaat seen bopp mais ñi ànd ak yéen a ko def da nga am preuve si li ngay wax. mais ñi mais. non je te pose une question man tamit am naa ci preuve kay waaw génneel ma ko. preuve yi kay mi ngi ne fàng ci Facebook. non non non ba dugal ci live Facebook RFM léegi nga gis euh, euh, kaddu yu ñaaw yi ñenn ñi di yëkkati. te nee nañ yéen lañ àndal loolu doyul ci firnde. Babacar man su ma jëlee sama compte face ubbi sama ordinateur créer sama sama compte Facebook bind sa tur saaga wax lu ma neex est ce que dafa waral ni yow yaa ko def. gis nga il faut ñu bàyyi. non non non non non soo leen soo bàyyi nag ma tontu. da ngeen di bàyyi saaga euh, yi. ak menace de mort yi xoolal c'est très facile tey euh, lu ñëw ñu né Pastef parce que Pastef dérange parce que Pastef incarne aujourd'hui une rupture bo xamné dañ ñu war arrêter wala ñu diaboliser lañ xam nga luma bëgg ñu xam ko l'avenir politique du Sénégal ne se fera pas sans Pastef té l'avenir politique de Pastef ne se fera pas sans Ousmane Sonko parce qu'il incarne le changement et la rupture bi nga xamné sénégalais yi mom lañ doon xaar donc da ciy ce li du jafé jafé xam nga lan la complot la di laccé di prendre les sénégalais à témoin ana Adji sar la question est dañ koy occulter ce débat et elle mérite d'être posée parce que aujourd'hui nga xamné accusé Ousmane Sonko dit la principale pièce maîtresse de ce dossier ken xamul fu mu elle est kidnappée cette fille Adi Sarr bi nga xamné tay mo moo Sénégal ub Sénégal caabi ñu ci Sénégal. Adi Sarr anam. Sonko kay euh, non le président Ousmane Sonko est disponible Il faut mettre en état de siège dans un pays qui xam <laughs> voilà on ne sait même plus où est-ce qu'on va mais li am euh, Babacar te ñu euh, dañu dañu nek à un virage important de l'histoire Sénégal Sénégal tay waroon nañoo mëna tok fi. fii j'aurais ça aurait été un très grand plaisir pour man ma ñëw fi ñuy waxtaan ci problème sénégalais yi ngeen may poser question si lan moy projet de Pastef lan motax président Ousmane Sonko ndaw ñi mag ñi xalé yi góor ñi ak jigéen ñi ñep wëlbeutiku jox ko bop. ñu waxtaanee Sénégal ak li jëmele Sénégal kanam Lolu moy débat bu sérieux mais ñu tok fi tay di waxtaanee un pays bi nga xamné 90% de la population ñu en dessous du seuil de pauvreté Covid bi di plus finir Nous avons les vaccins Nous avons euh, les cellules djihadistes qui nous découvrir euh, euh, au Sénégal des sujets qui nous ont dafa des portées tellement grandes Nous parlons ici di un complot pour encore une fois ternir l'image d'un d'un d'un opposant politique Mais wax rek ni gis le Sénégal opposition daf fi am ñun PASTEF décider incarner l'opposition radicale face à ce régime parce que nous d'accorduñ ci li ñuy def ci nous pensons que projet de société bi nga dañ le président Ousmane Sonko nek à sa tête c'est le projet qui va changer le Sénégal té projet bobu tay tous les Sénégalais les nañ il faut qu'il y ait des ruptures fortes dans ce pays mm-hmm. il faut que nous liguions pour changer le Sénégal euh, léegi ci coow li léegi fi mu assemblée tey jii nii euh, commission ad hoc bi tey la ñuy ratifié ñoom ñu ngi seen procédure levée immunité parlementaire yéen waa Pastef ci wàllum euh, xeex bi nan ngeen fas yéene taxawee ci mbir mi mbirum Ousmane Sonko bi. du mbirum Pastef li mbirum Sénégal la ndax tey assemblée nationale cette législature bi nga xam ne dañ leen a de lettre à la poste nga jox lettre posté ko mu dem lu ñëw ñu voté tay assemblée nationale Bob, en tant que sénégalaise pas seulement en tant que militante de Pastef damay interpeller ces députés di len wax rek ils ont rendez-vous avec l'histoire ndax tay lever immunité parlementaire d'un député pour des faits yo nga euh, tout montre que c'est un complot légèreté bi ci am war nañoo taxaw na xoolaat sen bop te xamné ne bu yobbo leen assemblée nekkaluñ fa sen bop dañu nek ndaw réew mi ñu wara nous avons voté pour nous neex nit wala lu parti Nous sommes sénégalais yi ñoo leen nationale et à ce niveau j'interpelle particulièrement le président de l'assemblée nationale Moustapha Agnès. Moustapha Agnès, c'est le père de l'assemblée à la limite même je dirais que c'est le grand-père ou le patriarcat de l'assemblée nationale Il a un parcours politique bu ko yóbbu tey fi mu nekk ma au soir de sa vie il a utilisé utiliser

ya ma gën xam luy définition viol xam nga buñ déggé viol Sénégal dañuy foog rek moy xëtt xëtt ak forcé ak ñom sen mhm. ndax euh, bu jigen ji né déet rek déet nga forcé euh, rek viol la léegi yow euh, foo féete ci mbiru Adji en tant que euh, D'abord, il n'y a pas de viol je le précise Le rapport médecin il précise. donc le la thèse du viol s'effrite et est écartée donc tey mënuñu wax. en tant que viol non médecin la wax. non euh, médecin bi loolu constaté. le ben, médecin le benn certificat médical bu médecin di wax viol am y ay constatation Il y def constatation boobu nga un médecin assermenté bu jàng moko le def consulter la fille ne fii viol amu rapport sexuel amu fi donc le viol n'en ko écarté tay waxatuñ waxu viol xam nga lan lañuy wax une femme qui a été instrumentalisée. jërëjëf voilà Pour jërëjëf Khadija Maye Koor Diouf ñu euh, gis nga sen gone yi ñi saaga ci Facebook beeg duggal nga seet ñu lay euh bok nga ci kilifteefu Pastef jiite jigéenu Pastef